maa ngi évité ko évité ko évité ko man bugganti ko lokkati ko indi ko tey nag dama xama tamit dama toll foo xamante ni dama jël ñi nga xamante ñoom maam les hommes nga xamante ne maam bokk nañ ci 2023 bi ak 2022 2023 ñi nga xamante ñoo gën a yëngal àdduna ñi nga xam ne ñoo ëpp vidéo yu gën a def buzz ñu ma évité maam ci bi donc ni du yaay muy maam Cheikh Ahmed Cissé euh, Cheikh bi maa ngi lay bu baax a baax maa ngi nangu sa ziar te di la ko delloo di ziare mm-hmm. suñu mbokki layen yi nga xam ne mhm. ñu ngi doon màggal Seydina Isa mhm. laahi ak uh, imaamul mahdi mhm. li ma bëgg a leeral rek mooy Seydina Limaamu waxut ne moom beneen yonantu la ndax alquran mooy téere bi mat buñ dul yokk duñ ci wàññi te daf ne yonantu jeex na ni Baye Niass waxee ne ku jaarut ci moom doo xam yàlla Sëriñ Tuubaa kenn jotut ko ci yonantu Maodo ne moy khalifa cheikh outou non la limam ne mooy yonantu mhm. kon buñ koy weddi dañuy weddi ñep deug la way ko ci deugal rek Mado te war la mëna may nga dëggal mhm. di ziaré njabotam sopem ak mhm. ñiko bëgg yëpp ci biir lolu ma ngi lay nuyu di nuyu wa cnm TV di nuyu suma mbokki Gambien yëpp ak fuñ mëna mën nekk ci adina di nuyu ñi nga xam ñom gëm neen te sédena yalla kenn la deug la ma cheikh bi seex bi dal sa balaa dal waaw xam nga tey. Mhm. imaamulaay moo woote. dëgg la. nit nag bu dee ba nga koo bëgg tam mu woote da nga cee bokk rek. bokk ca nag mooy nuru nuru la ko rek. yàlla mun nañoo may balaa ñoo dee doon laay. <laughs> mais seex bi gars yi naan da ngaa da ngaa ñaaw mais seex bi ñaawoo de. waaw yow yaa xef sa bopp rek mais jantal jantal paa nga wala jantal grand. xam nga tey <laughs> yàlla bi ma bindee. Mhm. moom mi xam dafa ndokkeel boppam ne maa ngi ndokkeel suma bopp ci lu rafet lii ndeysaan fa tabarakallahu ahsanul xaaliqina mhm. kon ku ñaaw rek soo xoolee dara dafay day ñaaw dëgg la maanaam nit ki sa réflexion rek ngay wax dëgg la même commentaire nit ki nam day lay commentaire ndeysaan

tey bu ñu mënoon tënk tuuti maam si kam mooy Cheikh Ahmed Cissé tuuti ndax seen seen internet maam Sirem TV mun ko mun ko mun ko déglu bu baax a baax. kan mooy Cheikh Ahmed ak lan la Cheikh Ahmed Cissé def deux questions différentes. Mhm. kan mooy Cheikh Ahmed Cissé Cheikh yàlla la. Mhm. Hmm? ah Cheikh bi Cheikh Ahmed Cissé. yàlla la. yàlla la waaw. <laughs> mais mais Cheikh bi loolu foor na de. ah man ci suma ndey ak suma baay laa jógee. Mhm. ñooñu si seen ndey ak seen baay ba ci Adama. Mhm. Adama ci suuf. Mhm. suuf fu mu jugee. pas méchant loolu rek laa bëgg a donc xam nit ne si Ahmed Cissé <laughs> si Ahmed Cissé yàlla la. <laughs> ah loolu kawe na de mais lay def. si moom lépp luy may xam-xam mu ngi ci. Mhm. lépp luy may xaalis mu ngi ci. lepp luy tax nga am jongoma bu rafet mu ci ndax ñett yi rek la bëgg xam-xam xaaliss ak jigéen leneen lu dul li suma nekk ci mais mais mais mais tey euh, ñu xam tout ce parcours da nga demon jangi xam-xam justement dañ ko donu wala soit dañ la ko sol na dama donu mhm. jang yalla may ma am na loo du jang du ndono may ak yalla la mhm. am na loo ndono la man euh, suma mbokk yi yemuñ ma mhm. ndax allu duñ ko nawé matu gu bari la man ndey ak bay këru xam-xam la fa ma yaroo këru xam-xam donc tey kii juddoo ci ngéwél gi bu tëggul yi day xam tëgg waaw bu feccul day xam fecc mhm. bu wëyut day xam wëy ndax ci kër ngéwél gi la juddoo man fa ma juddoo mhm. la wa mhm. nii rek laa mën a mel waaye nag jàng naa jàng naa def naa recherche euh, ci li nga xam ne moom laa bëgg muy xam-xam waaye tam yàlla may na ma am na loo xam ne moom njàng fekkewut ko da ngay a gis ko sa bopp mu leer na lii du góor góorlu du xel du pexe du liggéey ndey du barke bàyyi mhm. du sëriñ dogalu borom bi la ci yow mhm. nga gërëm ko waaw ñetti yooyu moom am na donn naa xam-xam mhm. jàng naa xam-xam yàlla mi am xam-xam may na ma dëgg la Cheikh Ahmed Cissé yaa ngi émission Roube Time rawatina maam fii ci tey nit ñi jàkkamti woon bu baax a baax xam kam mooy Cheikh Ahmed Cissé nga ne alxoon da nga ko jàng tarbiyu ko ba tey yàlla maam may li mu la may mais tey nitu yàlla nga wala business man nga war a maam sëriñ nga parce que nitu yàlla buy business la nitu yàlla buy business la donc yow doo sëriñ non sëriñ dafa tuuti ci man. Mhm. parce que sëriñ ñoom marañees yàq den ko mhm. mais ñooñu dañuy ci internet bi nii di fenaka duul rek den koo yàq. moo bi ma ñëwee seen compétition duul yi jël pe na leen Balla Gaye day daan te den koo duma daan ko donc. du ma sëriñ daal sëriñtu dafa yàqu. dëgg la mais man nitu yàlla laa. bu buy business. nitu yàlla buy bégee di happy. parce que damay dee te su ma dee ñu àcc may kook donc bala maa dee bëgg naa wane yàlla ne sant naa la ci dund bi. dëgg la ah, ndax du ma mbóot du ma janax doomu aadama la mais tey lu tax nga ne tey ñoom si Ameth ñoom kii Mara Niass ay dukkal lañ te yàlla ko dàq foofu. loolu compétition boobu noonu nan la dikkee nga xam ne ñii dama ñëw Sénégal wala ni man maa leen dàq li ñuy def non c'est juste pas ñoom ñooy su may nawle wala ñoom mm-hmm. Mm-hmm. dama doon yee nit ñi ci ne ñiy fenkat rek leen mm-hmm. tu vois parce que benn nit moo ne Siteu day daan mu daan benn nit moo ne Balla Gaye mooy daan daan wut léegi nit ki lan la tanduskat la tanduskat nag boo jëlee cinq millions jox ko ko moom charlatan la mais yow da ngaa waye di lii rek picture bi laa bëgg a wane mais loolu man ak ñoom du compétition man si mission laa nekk te man mm, maa ci yeneen vibes you know euh, waaye du man ak ñoom la non man su ma nawlee yi ñu nekk ci internet yi su ma nawlee yi duñ nekk ci tiktok bi. Mhm. mais comme ñoom tëju ne nit ñi di leen ut heure bu ñuy ubbee ko tijji man damay ubbi. <laughs> ku neex saaga ku neex ruube ku nu ma waaye gisee rek baax na <laughs> mais ku ma jege ma wàllu la mu baax ndax damaa baax. ndeysaan mais mais mais si am na yi dégg souvent nga naan sama dama nuyu sama mbokku gambien yi nga. Gambien 100 pour cent. 50 mhm. 50 uh-huh. la woon mais ñu ma jë jàppee yóbbu ci woon ci laa bàyyi Sénégal daal <laughs> seen nationalité jël leen du Roubé time la noonu. non Roubé time la mm-hmm. <laughs> dëgg la mais tey tey maam ñu bëgg a dellu si waat tuuti rek ci li jot a xew. ñu xëy suba gis maam ci Ahmed Cissé derrière maam di lee baro affaire yi maam Sénégal métti nit ñi maam xam nga ni mu demee ñu gis nga génn wax bay jooy ni dañ laa tuumal ëpp la doole. tey na nga dundee loolu. non non loolu jooylawul ma li ma jooyloo mooy injustice ak suma yaay. mais métit no métit su jooyloo góor na dem oddu ji mhm. non non non mais sentiment xam nga damay wax ma ne ndox bi gën a foor mooy ronkoñ sentiment rek moo ko mën a indi du ko neex jooy mais la lay jooyloo looloo rëy mais pas jooy mhm. mais bi nga demee tey maam ci maam ci maam ci xamante ni maam mooy kaso bi te la nga fa dund loo xamante ni gis nga ne lii naqari na ma métti na ma lool tey nga partagé ak waa CNM non non dara dara mhm. man kay kaso Mhm. bu doon nit la dama koy takkal médaille. kaso bu doon jongama la moom lay nopp. kaso bu doon oto moom lay dawal. kaso bu doon yére moom lay sol. Mhm, mhm. Ah, taxaw dem naa ba bunti rëbës ma taxaw di ko tagg. Hmm, rëbës laa doon tagg. ma ne ko yow yaay gor gi nga xam ne bépp gor buñ xamul valeur am ba dugal ko ci yow nga wan ko valeur am. yow yaay mbalitu askan bi waaye yaay seen taar. ndax ku ñëpp bañ nangu nga ko. fii ngay defaree ba balaa kay moytu dalay may temps mën nga toog quatre ans kenn du dee rëbës. dëgg la donc di ko tag tagg yu rëy quoi. maa ngi ko bind. mais bu ma fekkee maam damay toog rek di woy mhm, damay ñëw ci man. kon kon musicien nga en même temps. non musique dafa tuuti ci man. Mhm. mais man mm, ilham mooy ñëw ci man borom bi mooy wax ak man xam nga mosoo imaginer nit taxaw rek di woy kasu. ndeysaan woy yu riche yoo xam ne bu ma lay wax poème yi yow sa xol dafay neex. <laughs> mi laa xam ne kii xam na li muy wax. waaw ñu ci loolu. mooy li ma la expliqué leen loolu laa ko doon wax ma ne ko si biti ñu ne liberté la nit ñi duñ lekk mhm. waaye ñu nekk ci yow ñetti yoon la ñuy lekk ci bés nga gis ay gore di yoo xam ne suuf leen ndax yàlla ne min ha xalaqnaakum wa fiha nuhidukum wa min ha nuxrijukum mhm. taratan uxra mhm. ñuy jàmbat suuf te ñoom suuf leen te ci suuf la ñuy mujjee you know it was a very nice vibes waaw yu neex la man you know <laughs> mais tey bi nga duggee maam ci foofu ba génn tey lan nga senti sa bopp tey lan nga sénégalais bi la génnee ba nga génnee nan leen la teeroo. non xam nga man sénégalais den maa bëgg dama yéex a ñi may saagase den maa bëgg ndax bu ma nee jéeb ñu taxaw dootuñ dem naan waa ji doomaraam la imbécile la te imbécile bi ngay yàq sa temps ngay béggee waaw loolu la sam benn ko doon na wax sénégalais moo lay xas ba pare mhm. boo génnee mu béggee la man li ma bokk na li ma kaso jëriñ ñu bëri den ma mero mais bu ma duggee kaso dañoo mujj da ñu naan dama ko jéppi ba far faam rek mhm. mhm. man li ma teel a noppal mooy benn waxkat daf ne dafa toog ci àll bi wéet mu ne wallaay wéetuma ndax borom bi ci mbëggeel la ma bindee ku ma bañ duma saf waaw bëtam mu ngi tegu ci man ku ma gisutit yàlla mi gën nit ñi mu ngi may gis mhm. you know euh, moom moo ne dama taaru ku ne dama ñaaw da ngay fen mhm. su ma ñëpp bàyyee moom jàpp na ma kóolute ak kaaraange ne yàlla jàpp na ma mooy maa ngi ci suufam si mhm. man loolu laay dund saa su ne man su ma ñëpp di saaga daf may leer na yàlla saagawul ma parce que lépp lu ma def ba nga bañ ma def naa lu ko raw yàlla xam ko te bañu ma ndax moo ne rahmati sabaqat bi mm. man su ma su ma yërmandeeg su ma mbëggeel ci dafa jiitu ci yow Cheikh Ahmed mm-hmm. balaa ngay def bàkkaar ma lay mere waaw moo tax boo defee bàkkaar sax dafay patienté boo jégaloo mu baal la yenn saa yi mu baal la ba def ko tiyabu donc borom bobu la am ma amad yununtu bo xamne yuli bila sababin da ngay nek ku soufey mu yëkkati la mhm. yoti bila laa ajabin da lay may te du ragal ñak way yax bila ghadabin dalay jegal ta mere mhm. ak yununtu bi la tek suma karam ba loma bañ bañ bañ sama fu motam mané mois de février mu ngi waja a jeex mhm. yéen ñi ma bañ mars bi di ñëw top leen ko ngeen mars soox de ma vie <laughs> loolu na de soox ngeen and ak mars ngeen mars abé titan fou I don't care <laughs> I don't care mais si amat euh, tey ndeysaan nga dugg ci foofu génn xam nga gis Sénégal bëgg ñu la bëgg mais tey yan tànk nga amaat léegi isa maam si li nga doon def ba nga dugalaat la isa maam di nga ci delluwaat wala juste maam da nga da nga jàpp ni que li ma bi ma dal damay mujjee maam jël sama voix mooy nekk sama yoon man si amat non man mënuñ ma xooxatal ci dara tiito non man musuma gis lu suma bët ti mhm. waaw ndax dama xam ne su bi gisee rek loolu du yàlla te lu dul yàlla jarta tiit musuma tiit lu suma xel xalaat mm-hmm. ndax yàlla xel du ko jàpp mm-hmm. waaye xol bi moom bu xalaatee doole yàlla ak mbugalam moom tiitaange dana am waaye suma yoon daal ca lay ne man xam nga man forcé wu ma imposé wu ma man lii laa doon maa ngi nii naturellement waaw naturellement <laughs> rubekat bu mag maa ngi nii you know <laughs> mais bu la gaa yi fekkee sa kër taxañ taxañ yi la jël la yóbbu la non demeewul noonu mm-hmm. den ma woo su ma gars yi ma am na ku la doon woo adjudant ma woo ko mu ne ma da nga fi am convocation ma jëli ko vingt et une heures mhm. bi may ñëpp si vingt deux heures di laaxatu nit ñi mhm. parce que bëgguma woon intervention mhm. ma jëli ko ñu interrogate ma jox ma signaloo ma ma garde à vue ma demaat ñu signaloo ma mandat dépôt nii la dem mais kenn jël si wul ma suma kër kenn tañax tañaxewu ma da nga demoon jël si gars yi jaare ko dama demoon jël si ñibbi suma kër xëy wu xëy wuyu ji nga des bi ma wuyu jee mu am procédure ñu jaarale ko procédure boobu noonu yëpp. Mhm. ma dem tëdd ko naaj sax ci ngor ak jom. nga jàpp ni pièce la daal. mu jeex ma pas pièce je pense que procédure seen yoon la ñoom. Mhm. enquête la laajaat procureur yóbbu dossier mu ne téyal leen ma ko jàllal leen ma ko ma xoolaat. Mhm. I think procédure yu procédure yoon la. mais lan nga def ba ñu xëy suba rek maam maam ñu ñu la porté plainte jamra la dañoo baax. <laughs> mais est-ce que est-ce que bu nga ji ne jënd nga carte jamra. non non non jënd ma <laughs> waaye dinaa jënd. di nga jënd participer. Mm. ndeysaan ndax li nga doon wax rek juste. Mm, en fait ñoom je pense que dañ doon ne kaay leen ñu jàpp Cheikh Ahmed arrêté ko pour am crédibilité. Mm-hmm. mais en bés moo taxoon ñu def ko. ñu yëg seen niveau quoi non ñoom dossier bu amul bës duñ ci dugg. dëgg la da nga a dégg Jamra attaqué ko deful bës. non attaqué da nga xew. c'est naturel. xew bu dul xew yi moom man la rek. <laughs> waaw d'accord. ndeysaan waa Jamra mhm. dossier bu amul bës. Mhm. non amuñ ko. amuñ si problème quoi. ñoom boo amee bës ñu ñëw. Mhm. indi ay argument indi article jamais ñu indi ay alxuraan. dëgg la boo suuraa rek la Mame Matar Gueye di génnee. mais ayam boobu na ko trop. mais bi nga génnee Mame Matar Gueye woon na la wala woo nga ko. juste après da ngaa mujjee nekk sa yoon quoi après nga coupé tous les liens. non ma ko daan woo. Mhm. donc génn naa woo ma ko bi su ma amee envie ko laa koy woo. mais pas dama génn rek dama koy woo non du obligation. ci man woowoo ko. non non non woowul man. mais ci biir kaso dama ko daan woo. Mhm. dafa ma daan woo. mais nii nii nii mhm. indil na ma cadeau suma anniversaire alxuraan. bi ma génnee proposé naa ko visa AN. biir Maroc mais docteur am moo ko tere. imam beeg oustaz Mohamed Mbaye ñoom la 27 la ñuy dem incha allah. ndeysaan yaa leen ko may. si si waa. say seex bi seex bi man damay dem de. juste pour dire merci. dëgg la ci liñ la def. ci liñ ma def waaw. <laughs> mais tey ñu xamee la maam ci si wàllum femme wàllum maanaam awra wàllum góor ak jigéen. lan mooy awra. mooy awra mooy maanaam li nga xamante ni mooy mooy bu ku xool jigéen sa sa sa xel nekk ci moom. loolooy awra. waaw ah si man ni ma ko jaax man jàngu ma. oh. <laughs> <laughs> mais tey noonu na la demee mu leer quoi moo tax may laajte fait lan mooy awra ndax karaw yi ngay wax wala baati jigéen wala oomi góor. non ween yi. ok ween ngay wax ak lan. ween yi xam nga ween yi si jigéen la bokk. dëgg la kay baat bi. waaw waaw ak bi. ak lan ak yi nga xamante ne man man man pré maîtriser wu lu bari ma ne dama bëgg a ween. ok dama damay naam daal ween rek nga xam. <laughs> kon tontu bi ma ma yóbbu ko ci ween. waaw mais loolu nga xam ne maam tey. Mhm. la demee maam ak loolu noonu si yaa ngi koy jaay produits sexuels yooyu te nu demee tay da ci am espèce nga wax dañ ko jang wala ma ba tay tay gu Sénégal ki fi télé rek sa xel dafa dem am Cheikh Ahmed Cissé non man dama ko jang ba paré bëgg ko mhm. wax na la né euh dañ nek société bo xamné ne ku dul lekk cere amul mais soné ne damay ci ré ñu né la càggal nga ñoom ñëpay mëq nga gis borom ñent jabar di mëq borom ñaari jabar yaa ngi mëq mais comme société bi non la démé man dama préféré di len dimbalé mhm. ndax lépp luy mankil góor Senegal. amna Sénégal. moy mhm. stress. moy mhm. diabète moy tension moy bir bu def ngalaw moy hémorroïde interne externe. bugis fatiguement góor yi Sénégal bo gis li yépp bu ko dalu juromi dal neen ko mu dess ñaar. donc té su lolu ñëwé ngóor du day nelaw. know ray ko sa taxul mu jog donc man ma ñëw taxawé buntu bobu di len dimbalé di ci jaamu yalla mais di len yé di tuddu abbat yi ni mu amé diko wax pour mu lèr ngir jamono buy ñëw ak ñi xamul mhm. société bobu doon ay nafaq ñenn ci ñom taxaw ne ki dafa ñak yar te xam ne ne dañuy fen ndaxte ñak yar ak wax olof du ben ñak yar ak jangale xam-xam du ben te bu ko benen sëriñ defoon ku am askat ñu ne ah sëriñ ak a waye comme man la wit na rek dañ lay xalab di la saga waye bu caméra yi wàccee xam ne ne dëgg nga wax mais tey tey li ngay jàngale li li ngay jàppale sénégalais yi maam maam da ko jàng justement da nga dem gëstu ko ba mën a xam ni lii mën na faj maanaam góor gu tëlee. xam nga jàng ñett la. Mhm. ñu wax la ñu wan la ak nga ñam damaa ñam xam. da nga ko test sa bopp ba pare. damaa ñam umpale wu ma jigéen du ma vierge. damaa ñam xam ni mu neexee. kon sérieusement Cheikh yaa ngi laaj booy yi. booy yan am naa jabar bi. waaw mais xale yi. non xale kenn du ko laal loolu violé la. man man man li nga waxoon ne damay namp ci booy comme namp. non jàngale la. Mhm. mais xam nga ne man ñaanuma yàlla fer bàmmeel bi sax moom bu ma jegee ma namp. dëgg la bëgguma fer. dëgg la mais. kon loolu slogan bi ko indi woon mais nampoo ci booy quoi. non góor gu dul namp est-ce que am na. Mhm. mais ça dépend ci kan nga war a namp ak noo koy nampee. ah namp dafa bëri façon. dafa bëri façon. Mhm. mais jullit bi moom ku dul jabaram waru koo namp. waru koo namp. waaw mais nit ku moom sa bopp te ragaloo yàlla. ah mën du problème. <laughs> loolu loolu ëpp ah, ragal yàlla rek a mën a limité nit. Mhm. xam nga tey jongoma nu mu neexee. Mhm. ngeen wéet te ñemewoo koo laal ragal yàlla rek la ko mën a yóbbu. mais bu taqwaa jógee tànk yi ci palanteer ba la jëm mais tey tey tey la moo tax maam góor ñi léegi di gaaw a daanu loolu pour lan la mooy mooy li ma la wax rek stress bi stress bi waaw man bi ma duggee kaso toog naa trois semaine nguur a yëngatuwul ma dem ci major da ko kaa am na docteur sexe bi sexe bi jugu mu ne ma stress la waxtaan ak man bi ma génnee ci buntu bi la commencé yëngu ma ne ko waa lii mën a am jàmm am <laughs> nga tiis sa bopp waaw ma ne ko lii mën a am jàmm am de yaay suma wéttal yaay suma xarit <laughs> buñ na góor tubéyee tax tubéyee tax hmm. mais mais mais tey euh, garabu ngóor yi ngay jaay maam sunguf la reer la wala meew yooyu naan. non am naa sunguf mooy doy waar. doy waar waaw boobu dafa doy mais doy waar dëgg ñu tuuti si la mooy doy waar. daal ku ko naan booy rëkk ci gi junne yoon ngay dóor door a daan. sans coup. maa wax loolu. mais loolu maa yàqal jigéen du ko caxa-caxate. pas sans coup de def dee. <laughs> maanaam dugal ak génnee balaa ngay daanu loolu laa ah. moom la doy waar di <laughs> def. bu nga ko compter. ah waaw normalement non góor góor en fait euh, soo gisee dawal oto manuel baax mhm. day tax sa xel mi des góor bokk na ci sàmm sa jabar mhm. balaa nga koo yéeg liiral yaram bi ak tàngaay yaram bi mais loolu na liiree xool jigéen ba miin ko psychologiquement mu ngi mel ni ni ngay liiree sa doom ba xam ne am na lu mu def te defu ko rek mhm. am na lu mu def mu ngi mel ni ni ngay liiree mm, nit da ngay lire parce que doomu aadama dafa am instinct su passé xel dafa am yëg-yëg. waaw yëg-yëg boobu dafa fort yëg-yëg boobu mu ngi ci diggante xol ak xel. Mhm. sa jabar bala ngay dem war nga ko a nan la yaram bi di jëlee dos bi. Mhm. boo commencé dugal war nga mun a xool. Mhm. suy Warga mana ham. war nga mën a xam. su daano ba pare war nga mën a xam réaction am looloo tax ëllëg bu sa jabar mooy nga ne ko tiis jàpp. donc loolu expérience yooyu noonu est-ce yomb na am ci jamono ji yomb na am bàyyi xel la rek mais su fekkee amoo xel yow da nga bugg rek nguur nga daanu. <laughs> soo paree naan ko tu me fais plaisir euh, du noonu non non non <laughs> il faut nga xam li ngay def lan la moo tax fi balaa ngay laalante na doon sa fiancé mm-hmm. au moins soo mun su munta nekk sa jabar mm-hmm. mais foo yéeg jot rek yéeg cëpp soos doo xam dara nga jàpp jàpp miin jigéen ak xam jigéen du benn waaw nit mën naa yem ci benn góor rek xam jigéen mm-hmm. da ngay lecture la waa xam yaramam da nga koy xam soo xamul sa jabar noo koy daanale noo koy bégalee faaw nga xam ko moo pa da ngay dégg nit ki ne man def naa maam ay 10 ans de mariage musuma xam li bànneew sëy dina nekkul foofu lay jógee quoi nga nekk sa jëkkër te mun la satisfaire sexuel non jigéen ñi ñoom dañu dafa am dañu dañu doy waar buñ la bëggul boo gënoon ak garaaw king kong sa duñ la yëg <laughs> ñoom dañoo doy waar suma ji suma xarit ñoom kay dañ lay sentir boo ko sa ñut commencé toy mais nii nii nii non gën la ay king kong del indi fleur di sukk ko joxe xaalis buñ la saaga oh. donc dañu dañu honnête daal ñoom daal bu ñu la bëggul rek bëgguñ la mhm. dëgg la hmm. moo tax jarul forcé de jarul liggéey jarul insister soox mhm. soox viens viens je t'aime t'aime fort donc donc maam day jigéen pour mu gaaw a daanu bokk na maam si bu bëggee waaju mu nekkal si bien sûr ñoom ñoom seen daanu ci seen santiment la nekk mhm. am na ñoo xam ne dañuy miin bagage yi boo ko jaaralee yoon rek ñu la sentir ne la sentiruñ la mais jigéen dëgg bu la sentirul mënoo ko daal mënoo ko daan waaw gaawal la lay wax ak pare nga mais papa nga gis tamit jigéen bi ne la man man gaawumaa daanu man góor góor mënumaa yëngal loolu tamit du sonni loolu non su ko waxee ren na ko gisagoo sa sa nattu mhm. donc loolu dafa am dafa am solo tamit quoi jigéen gis seytaane si si si jigéen bu la sentir da dafay daanu amul werante mhm. Mhm. ndax ñoom seen yëg-yëg ci espace la nekk espace. Mhm. boo leen jegee. Mhm. rek ñu commencé tàng. jigéen moom boo koy jege mu tàng. c'est ça. waaw waaw même sa gémmiñ sax sa kàddu jege noppam yi rek yaramam day daw di caddatat yi xam nga ñoom espace la. moo tax soo ko akulaatee lu bari la yam surtout jamono sedd. <laughs> jamonoy sedd. ñan fonk jigéen waay. jigéen dafa neex nag. Mm-hmm. jigéen dafa neex torop non neex mooy jigéen mais pas jigéen dafa neex. Mm-hmm. ah neex mooy jigéen. pour na am na ñu mu sànq ñu bari neex neex boobu. non musul sànq nit ah. ah mais nit ki mën na topp jigéen ba maam léppam jeex. non topp jigéen ak jigéen du benn. Mm-hmm. topp jigéen ak jigéen góor amul fay da nga topp ko sa jigéen nga topp. dëgg la. yonent mu ne taatu nisaa i nadama topp jigéen rëccu ci moo rëccu moo ciy tagu mais terel jigéen moom ku tedd rek a ko mën konteks yi ñoo dul benn quoi xam-xam yi sew la. xam-xam yi sew la. Hmm. mais na wo ben ak ngeen da nga am produit bu tuddu doy war à part doy war ba mo am. amna andala buri. andala buri la la. andala buri ndox la ay bitakola la jinjer ak xal bo mom boko nané ni hmm. wo pa pa pa pa pa pa cay andala. madu madu madu da ngay melni fas. ken musul gis lu mel nonu fas du dara yow fas day son <laughs> mais à part ba mo à part buri ba mo am. amna regu daf ko reyel diko guddal. mu dëggee mu jubbanti ko bu gàttee mu guddal bu tuutee mu rëy. ah kon bu déggee baax. seex da nga koy diw dangay ngay da ngay yokk awra. maanaam man suma xam-xam ci wàllum awra la màcc. Ah. man awralog la. awralog nga. Hmm. maa da ngay yokk awra mu nga yokk mu nga ko. damay yokk awra bu tuutee. Mhm. damay guddal awra bu gàttee. Mhm. damay jubbanti awra bu dëngee. bu nooyee dama koy dëgëral awralog la. dëgëral awralog mais yow loolu da nga koy jubbanti si baatin wala juste. da koy maanaam baatin non man suma garab yi du incha allah de ay su neexee yàlla yi. non non non bi isnillahi la ci ndigali borom boy diw mu bax boy nan mu bax ya mhm. neen ñu may ak inshallah allah kenn sañu ci lacc xaalis. deug la ta ah, bu neexee yalla mu ngi melni mané suba damay nek président bu neexee yàlla <laughs> c'est pas réel quoi. deug la mais nit da nga wara jaay lu leer te wóor te man ni may la pharmacie wara jaay kon kon wañé ko maladie wir ndaysan ah, man ku nan wir nan wir donc c'est grave yow amul amul amul amul manam testé baxul ak yoyu non 2019 la commencé jaay 2023 nit musul wax na mu ngi ni mhm. ma jënd baxu te ñima contrôle bari nañ de donc joni joni la def gis tak takin tak def ah gis vite fait ñu awralog def gis waaw mais tay tay tay ma def gis lo ga kenen buguma bëgguma yow rakin tak nga mo Baara Ndiaye def gis non non man rakin tak <laughs> mais li nga jaay tamit li nga jàppale jigéen ñi Mm-hmm. damay yok sen ansi yi noddante sen weni yi ko ba ci kaw parce que jigen ñetti bayre la tuñ bi ciusi ak coppare bi ba ci ginaaw gambe waaw parce que ñoom ñoom sax bëgguñ ah. parce que je pense que kilistoro fama kalastoral calastoro kilitros waaw ñoom boo waxee complexe la den nan dafa mm-hmm. ñàkkeer mm-hmm. kilitros ñetti bayre yo la jigen am ci kaw lal weni ween yi defal ko weni ciusi ciusi tuñ bi tuñ bi ak kilitros ak copparet bi dëgg la mais tey loolu na nga koy defaree nit mën na am ay weeni ndaw nga xëcc ko. bien sûr te tamit. da koy ah, xale bu ndaw mooy namp weeni ba mu wàcc. ponkali goor di ko raay ba mu wàcc kon kay xam-xam mën na koo noddantiwaat ba mu tooju. du ñuy mucc la lu ñuy diw la wala lu hmm, ñuy. da nga koy raay diw ko mu delloowaat bagage yi ci biir defar ko ba mu nooy ba mu ne jàdd taxaw. dëgg la hmm. tuñi la nga ci liggéey tuñi. non boobu amu ci xam-xam. Mhm. donc tuñi daal lu mu mel baax na. non pas mu mel baax na man maa ci amul xam-xam. copperet bi. man ansi laay defar ak ween yi. ah ñi gën a baax daal ansi mais ansi da koy da nga koy réel wala nga koy. jëloo forme non da nga koy diw rek muy muy muy màgg quoi. Mhm. xam nga ñu ne sa jabar bu la tooñee matal taat yi bu néewee yokk ko taar. Mhm. jigéen kenn du ko dóor. ndeysaan ah, loolu baax mais gars ñu dóor seen jabar yi de. non tëddal ko ba rek nga màtt bu néewee mu gën a duuf après bu solo day naaj mais bul dóor su dóor jigéen ma jongal. <laughs> non mais nag yaa ngi liggéey nag lu neex Cheikh lu xam-xam bu neex bu man ma mën ma man ma bëgg a jàng man. mais mënoo avancé ci wàllum taat. non si nga ci de. <laughs> non non ko bëgg a taat la. <laughs> non damaa faible. Hmm, mais loolu mën mën naa ci mën nañ ci dara. góor bu faible. ça dépend ci ban faiblesse nga faible rek. bu dee yow da ngay gis ay ween rek lu nga gis insecte daal di ubbeeku loolu jàngoro la wala. kon yow da mën a ubbeeku di tëju. waaw man damay ubbeeku. yàlla may na la man xaw ma loolu man xam-xam yeggu ci. dëgg la mais mais mais bu dee man damay gis weer rek tàkkali ko sama sago nag. kooku la rek. Hmm. mais ah, mais mais mais Cheikh am na ñoo xam ne ma bëgg nga jàppale mu ngi tax waate maam ci bus yi ak maam car rapide yi. non man gisuma loolu. non tafu ci bus yi. ak gis naa ni comme day. jël gisee loo ci def. ma ko wax. nit kuy jugee maam ma ci xam-xam. mais mais nit ku la ne la damay tafu waate. mënoo koo faj. no man daal lu jëm ci wàllum awra bu dëng. Mhm. ak bu nooy laa mën. lu dul lii yàlla na ci yàlla def jàmm. du ma sëriñ ñaanuma ñaan lu <laughs> d'accord Cheikh Ahmed kontaan na ci loolu mais tey na nga gisee showbiz Sénégal yow nga nekk si showbiz bi gis maanaam tey artistes yi comédiens yi sa faa xiro beeg naay en tant que tey seex bi tey lan nga ci am loo ci wax. non nit ñi dañu comprendre man suma intelligence mayut ma ma nekk showbiz am na koo xam ne day. jóge këram. Mhm. dem ci showbiz bi fa lay jëlee dépense. Mhm. fa lay dundee. fa lay amee. Mhm. man su ma demee dama fay joxe mais duñ ma jox. dëgg la man duma dem fu may perta non non non li ma fay yóbbu liñ li foog du sab benn. you know am na koo xam ne bu showbiz amul day wayadi. jamono corona ñoom ñëpp a wayadi. donc yaakaaroo ci aar bi. non yaakaaroo ci milieu showbiz bi. am na ñoom ne dañuy ñëw. lepp paas dem bu ñu fa jógee la ñuy fay. mais Cheikh Ahmed bu ñëwee kan moo koy may. bi nga ñëw jib la daare donc man beneen mission laa am bu gars yi xamagul mhm. mais man ñàkkuma fayda dem di génne ay millions cinq cent mille di maye chaque samedi ak dimanche pour la newoo ci yooyu non mais mission neer laa fa bu jeexee rek day jeex mais yow tey lan mooy sa mission tey Sénégal fii taw ngeen ci àddina pas Sénégal waaw ah, ci àddina bokk defar koo yi rek surtout kese yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defal na xel yi Cheikh Tidiane defar xol yi mhm. pour seex bi ñoo defar man ma defar awra yi awra parce que loolu insaaniya la mission bi la sant la man maa ko aaki moo bëgg ko di ci jaamu yàlla ko mhm. mais tey loolu lan la la may tey defar awra may na ma teraanga àddina mhm. parce que mos naa dégg sa benn interview nga ne maam waa ji euh, maam dawalkatu sereet bi la doon jàpp di ko tëyëx si bari bari na sax cas yooyu am naa mhm. ci benn rek bi may ñëw nii ci oto bi waa na ma cheikh bi suma far bi ma jëndaloon doy waar bi de tout mu ray ma su ma ko teeloon a xam du ma tas ma ko da ngay dellu sa jëkkat saa yoo bëggee ma may la ta doo jënd waaw te su delloo ma may ko du jënd mhm. donc jaam xaalis moo ma ci dugaloon mais après jaamu yàlla gi moo ma ci bàyyi mhm, mais da nga gis góor goo xam ne du ñemee wax sax téléphone day ñëw sa kër mu leer la ne sa morom yi bàyyi la mhm. mu lay expliquer jabaram yi ni koy moyee ba ci kaw lal dañuy wax ak seen fari naan leen suba dinaa fa ñëw te doo ñemee wax parce que soo coowee mu ne la doogoo waaw dafa bari moo tax Sénégal man den ma waroon a décorer. ndeysaan am cër ñu ma jox. parce que dafa lu may liggéey luñ lu seen bàyyi mënta liggéey. Mhm. lu seen sëriñ si ñemewut a liggéey. Mhm. man ma koy liggéey. ñu doon ay naa naafeq naan dafa ñàkk yar dafa ñàkk teggin non non man mënumaa xam yàlla ba pare ñàkk yar. dëgg loolu mënul nekk. te ku ma xam soo jàkkaarloog ma nga xam ne kii ñàkkul yar. Mhm. mais dimbale nit daf ma jaral lu nekk ndax yonentu moo ko waxoon seen naal yu na ko fexe ba kenn jub moo gën lu jant bi di tiim waaye fexe ba dimbale doomu aadama war na la jaral sax ñu saaga la war na la jaral ñu xas donc sa biir wax damay damay gis ni maanaam dafa mel ni maam yow fi la waroon teg teguñu la fa non recommandation bu ñu war a am amuñ ko mais bul fàtte ne Cheikh Anta Diop balañ ko tuddee université dee na dëgg la dañ ko bañoon a jox doctorat te moo fi indi carbone 14 you know donc tey peut-être jamono ngi ñëw jamono jox ma raison. def lu baax daal moo am pertement. waaw su dee lu may def lu baax la lu sell la yàlla laa ciy jaamu. Mhm. du ma de. waaye su dee xamadeeg sañ-sañ lay jaay fit bu rëy. Mhm. ngeen ma bàyyi àdduna dana ma ñuus ba ma bëgg a dee. donc moo tax man wooriwu ma quoi ça xam naa li may def xam naa fi ma jëm. donc ci li nga nekk nii maam à part xaalis bi jaamu yàlla moo ci. waaw xaalis moom moo ma ci dugaloon franchement. parce que dafa gaaw. Mhm. gars yi dañuy ñëw nii benn bés nga dajale ay <laughs> ma ne yéen lii neex affaire yu nga dem bay jaay un million 1 million cinq 2 million, millions ma ne hmm. yaaw. Hmm. mais après da ngay dem ba gis lu hmm. la ëppal loolu. jigéen woo la ne la maa ngi lay sant di la gërëm xam nga expliquer la kaam góor woo la. you know amna jigen jigéen boo domam ne doomam yëpp seen awray dafa gàtt. ndeysaan taawam bi jàng na ba am mas ñemut a takk jabar ñemut a doxal yëpp yàqu guddal ma di leen dimbale ñooñ dama leen may te seen yaay am na xaalis. mu ne ma dama laa seetaan ba ñeme la wóolu la waaw ndax man neexoo ma woon suñ bureau kenn ma ne benn jigéen moo lay déglu soo waxee lu reetaan lu ma ree noonu laa dem ba bëgg la ma lay déglu nga convaincre ma ñooñu ñëpp ma defaral leen bañ baax même xale bu am sept ans sax parce que bosam yamul ni micro CNM bi yaa ngi tuub rek waaw <laughs> mais nag est loolu li nga jaay amul conséquence non àdduna lépp am conséquence su ma toog fii sax am na conséquence. dëgg la mais est ce que maam conséquence boobu ëllëg du feeñ maam tamit parce que affaire yi est nga si sukkandiku tout le di naan di diw di raay di dóor di naan di diw di raay di dóor. ta nga ta ta nga sax si lekk ak naan lekk lay jox jabet lekk lay jox tension. Mhm. yaa ngi koy def. mais loolu doole boo doole ci yow la du nekk lu naturel. dama ne. Mhm. bi nga juddoo ba tey yaa ngi lekk. Mhm. lu tax arrêté woo te lekk moo lay jox jabet. lekk moo lay jox tension. yaa ngi lekk rek. dëgg la naanal garab yi rek. li war a am am foo ñu réalistique ko dëgg donc jàpp nga ni garab yi amul benn cons bu am. am ci lépp loolu laa est-ce que yaa koy xamal gars yi ñi xanaa ñoom dañ ko soxlaa xam. Ah, ndox sax am na conséquence. ay <coughs> naan ak paane ndox mais tey mais tey fan ngay fan ngay toll maam ci koo xamante ni gis nga ni kii nii impuissance bi mu am tey wala fekk am ni man mënuma ci dara fan lay toll ci nit boo xam ne lii c'est trop tard moo toog moo toog amul benn garab boo koy jox du doy waar dara boobu maam bu mu gis ni que lii mun na changer. Euh, su fekkee ne dafa am benn sidit bu dagg ci biir. waaw mais boobu moom c'est fini jeex na. jeex bu amee benn veine bu. dagg ci mais dafa nooy rek. Mhm. non benn kaas yi ànd laa mun <laughs> yëkkati ko de. mais sidit moom bu daggee moom y a des problèmes. boobu moom merci rek moo ci mën. non merci ciy mais tey mais tey mais tey kii booy di mballu nag mballukat yi. non seen affaire la non mais Mbaam tey na ngay jàppalee ñi nga xamante ni dañuy mballu ñi nga xamante ni maam mënuñoo bàyyi mballu non amu si amu si ñoom xalaat mais xamante ni maam sa guddi mu jël saabu wala omo non su amul ñaan boo ko mën a jox non téere du ma sëriñ sëriñ saa bind ñaan ak téere amoo tamit pommade boo ko jox mu bàyyi mballu non donc mbal ko di amuñu chance ci yow non non non xaw ma sax <laughs> xamoo leen te doo jàppale benn mballukat mais tey yaa ngi jaay doy waa isa maam tey tamit xale jigéen ñi papa dina papa di la woo la rubi ay si Ahmed yow yi xam nga la dugg. non ku ma a dugg da fekk ma doon kër gu amul rido da ngay ñëw rek sarale. yow dawoo ci saala yaa neex. non <laughs> mais mais yow ñi ngay faj papa duñ keesawu quoi bu ñu amee ñëw wu wax la lii. moom ma dal wala nga gis ni kii non ma ubi buntu bobu man da ngay ñew carrément jaar ci baati mhm. wax ak man def ak man mu jeex nga dem ñu nekk gaay ni mhm. man ki lu mu kesso wa kesso bu ñu. gis su fekkee ne société bi dañ ci noppé wax def ko kers mhm. borom jangoro dañu nopp. mais den may wo su ba ngoon guddi beccëk di wax seen problème. ñu lay wo jigen te jigen ñoo ci ëpp maam pour seen jëkkër ak seen famille. non légui jigen ya koy jënd ci dé tay ni rek fuma démon ci ziaré bi jigen na jox ma sëri ca suma démé ma tangal kër ga. en fait dem naa ba nekkatul kersa ci ñuy sëy ñu jëndal ko seen jëkkër te c'est bien beau. Mhm. nga daal di sàq ci oto bi jox ko mu yóbbaale. waaw yow su demee tey ñu nekk fa réelli réelli gi foo toll di ko dégg. <laughs> ne ko si mais tey amatee lan mooy projet yi. tey est-ce maam tey ñu ngi xaar maam papitage yi amat wala loo xamante ni maam tey genre maam institution boo xamante ni maam nit ñi la faa fekk mu am ay maam mu jaar si si dans les normes quoi. si si waaye comme garab yi du doon suma liggéey à cent pour cent man leneen lay liggéey maybe the next five years yeneen cinq ans uh-huh. mm-hmm. mais dama bëgg a donc garab yi dama bëgg a dugal garab yi ba mu mm-hmm. toog ci réew mi ma créer base de données dix mille ba vingt mille personnes mm-hmm. di leen jaay chaque mois loolu mën na dépassé wu nga dem nekk ci leneen quoi donc yow buggoo sukkandiku ci jaayam garab bi kese non atam su ma wërsëg ëpp na loolu teew teew yàlla nga waaw. <laughs> Moussaoui te yaa ngi woon tey seen émission maam Roubé Time tey na nga gisee maam concept émission Roubé Time ak maam fii CNM TV tey nu mu tey bi nga ñëwee tey ba yëg-yëg nga am. non bi nga waxee baat bi rek laa dem ak concept bi. Mhm. parce que ndaanaan la damaa man bés. dëgg la wax nga ma ko. Mhm. nee nga boo bëggee mu neex dafay neex. Mhm. dama ñëw rek nga ne ruube ma xam fi nga jëm ma topp la ci ligne boobu. Mhm. jox la émission bu nekk. dëgg la jeexee rek ñu fay micro yi jàll ci leneen. jàll ci leneen mais tey maam la mooy sa mot de la fin. mooy képp koo xam ne dag ma bañ jërëjëf. Mhm. ñi ma bëgg ngeen ñaanal ma yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatulah. <laughs> mais ni nga tawaloo ñax na kees rek doon doon ñu ma dara <laughs> jeex na. mot de la fin <laughs> waaye la ngay tàggatoo. tàggatoo la. <laughs> waa gis nga. xam nga xew dafa neex loo mu neex. <laughs> waaw waaw non dafa xew nag. Hmm. non si amoon dafa ne yaa gisoo du mu ñëw <laughs> nekk ci lu ko neex waaw si dee bonne émission lu weta ji ak si beneen numéro ak beneen Roube time CNM, la télévision se déplace vers vous et pour vous. Une innovation de taille. CNM, la chaîne 100% digitale, le village de CNM, est un lieu d'échange, de partage, de communion entre CNM et ses téléspectateurs. Tout au long de la journée, nous organisons des émissions religieuses et sociétales. Thank you. tubaarkàlla macha allah yéen a ngi seen émission Roube Time émission moo yëngal jamono di remercier bu baax a baax ses entos xamante ñoo gën a yëngal àdduna ñi nga ñoo ëpp yu gën a def buzz ñu may invité maam ci biir semaine bi donc nag ma dem diggante koo xamante ni du ma leen ko présenté te ñun sax duñ ko présenté fii Sénégal yaay muy maam Cheikh Ahmed Cissé euh, Cheikh bi maa ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi nangu sa ziar te di la ko delloo di ziare. Mhm. suñu mbokki laayeen yi nga xam ne. Mhm. ñu ngi doon màggal Seydina Issa mhm. Lahi ak euh, Imaamul Mahdi. yow bëgg a leeral rek mooy Seydina Limaamu waxut ne moom beneen yonantu la. ndax alquran mooy téere bi mat buñ dul yokk duñ ci wàññi te daf ne yonantu jeex na mhm. ni Baye Niass waxee ne ku jaarut ci moom doo xam yàlla Sëriñ Tuubaa ne kenn jotut ko ci yonantu mhm. Maodo ne mooy xalifa Seexu Tijaan noonu la limaamu ne mooy yonantu mhm. kon buñ koy weddi dañuy weddi ñëpp dëgg la waaye koo ci dëggal rek maa dote war naa laa mën a may nga dëggal ko di siyaare njabootam soppeem ak ñi ko bëgg yëpp ci biir loolu maa ngi lay nuyu di nuyu waa CNN Mhm. di nuyu suma mbokki gambien yëpp ak fuñ mëna a nekk ci àddina di nuyu ñi nga xam ne mhm. ñoom gëm neen te seede na yàlla kenn la mhm. ma cheikh bi seex bi daal sa balaa ngaa daal waaw xam nga tey imaamulaay moo woote dëgg la nit nag bu dee da nga koo bëgg tam mu wote da nga cee bokk rek bokk ci nag mooy nuru nuru la ko rek yàlla mun nañoo may balaa ñoo dee doon laay <laughs> mais cheikh bi gars yi naan da ngaa da ngaa ñaaw mais cheikh bi ñaawoo de waaw yi nga xef sa boo pare mais jantal jantal paa nga wala jantal garaa xam nga tey yàlla bi ma bindee mhm. moom mi xam dafa ndokkeel boppam ne maa ngi ndokkeel suma bopp ci lu rafet lii ndeysaan fa tabarakallahu ahsanul xaaliqina mhm. kon ku ñaaw rek soo xoolee dara dafay day ñaaw dëgg la maanaam nit ki sa réflexion rek ngay wax dëgg la même commentaire nit ki nam day lay commentaire ndeysaan waaw fam tollu lay commentaire même jëf nit ki nam toll lay jëfee dëgg la waaye xool mbindeefam yàlla gis ca ñaaw c'est parce que yow sa gis-gis moo ñaaw dëgg la waaye doomu adama lu taaru la dëgg lu rafet la dëgg la waaw Cheikh bi mais tey bi moo xam tuuti nga bu ñu revenir si kan mooy Cheikh Ahmed Cissé parce que ñu bëri naan maara la ñi ne noo maanaam xam nga c'est maam businessman la ñi ne noo xam nga c'est juste maam ruubekat la tey bu ñu mënoon tënk tuuti maam si kan mooy Cheikh Ahmed Cissé tuuti ndax seen seen seen maam si TV mën ko mën ko mën ko déglu bu baax a baax kan mooy Cheikh Ahmed Cissé ak lan la Cheikh Ahmed Cissé di def deux questions différentes mm-hmm. kan mooy Cheikh Ahmed Cissé Cheikh Ahmed Cissé yàlla la mm-hmm. hmm? ah Cheikh bi Cheikh Ahmed Cissé yàlla la Yalla la waaw <laughs> mais mais Cheikh Cheikh bi loolu foor na de ah man ci suma ndey ak suma bay baay laa jógee mm-hmm. ñooñ ci sen ndey ak sen bay ba ci Adama Adama ci suuf suuf fu mu jógee dëgg la c'est pas méchant loolu rek laa bëgg donc nañ nit ñi maa nañ xam si Ahmed Cissé moom <laughs> si Ahmed Cissé yàlla la. <laughs> ah loolu kawe na de mais léegi si Ahmed lay def. si Ahmed moom lépp luy may xam-xam mu ngi ci. Mhm. lépp luy may xaalis mu ngi ci. Mhm. lépp luy tax nga am jongama bu rafet mu ci ndax ñett yi rek laa bëgg xam-xam xaalis ak jigéen. lu dul li sooy nekku ci. mais mais mais mais tey euh, ñu xam tout ce parcours danga nga demoon jàngi xam-xam justement dañ ko donn wala soit dañ la ko sol. ndax damaa donn mhm. jàng yàlla may ma. am na loo xam ne moom du jàng du ndono yàlla la. Mhm. am na loo xam ne ndono la man euh, suma mbokk yi yéemuñ ma. Mhm. ndax àll duñ ko nawee matu gu bari. dëgg waaw man ndey ak bàyyi këru xam-xam la fa ma yaroo këru xam-xam. donc tey kii juddoo ci ngéwél gi bu tëggul yi day xam tëgg. dëgg la. Abu bu feccul day xam fecc mhm. bu wëyut day xam woy ndax ci kër ngeewel gi la juddoo man fama ma mhm. la garwa ni rek la meuna mel mhm. way nak jangna jangna def na recherche euh, ci li nga xamne ne la bëgg muy xam-xam waaye tam yalla may na ma am na loo xam ne da ngay xëy gis ko sa bop mu leer li du gor du lu du xel du pexé du liggéey ndey du barke bay, du sëriñ dogalu borom bi la ci yow nga gërëm ko waaw ñett yooyu moom am na donn naa xam-xam mhm. jàng naa xam-xam yàlla mi am xam-xam may na ma mhm. dëgg la Cheikh si yaa ngi émission Roube Time rawatina maam fii ci CNM TV tey nit ñi yàkkamti woon bu baax a baax xam kam mooy si Cheikh Ahmed Cissé nga ne alxuraan da nga ko jàng tarbiyu ko ba tey yàlla maam may li mu la may mais tey nitu yàlla nga wala business man nga war a maam sëriñ nga parce que nitu yàlla buy business la nitu yàlla buy business la mhm. donc yow doo sëriñ non sëriñ dafa tuuti ci man ñu sëriñ ñoom marañes yàq den ko mhm. mais ñooñu dañuy dégg ci internet bi nii di fen ak duul rek den koo yàq parce <laughs> bi ma ñëwee seen compétition duul yi jël na leen ballagee day daan te den koo duma daan ko donc duma sëriñ daal sëriñ tu dafa yàqu dëgg la mais yàlla laa buy business nitu yàlla buy bégee di happy <laughs> parce que damay dee te su dee ñu àcc may koom donc bala maa dee bëgg naa wan yàlla ne sant naa la ci dund bi. dëgg la ah, ndax du ma mbóot du ma doomu aadama la. dëgg ne tey ñun si Ahmed ñoom kii Mara te ko dàq fuuf. loolu compétition boobu noonu nan la dikkee nga xam ne ñii dama ñëw Sénégal wala ne ni man maa leen dàq li ñuy def. non c'est juste pas pas ñoom ñooy su wala ñoom. Mm-hmm. dama doon yee nit ñi ci ne ñii fenkat rek leen. Mm-hmm. tu vois parce que benn nit moo ne Siteu day daan mu daan benn nit moo ne Balla mooy daan daanuwut mhm. léegi nit ki lan la mhm. tanduskat la tanduskat tanduskat nag boo jëlee cinq millions jox ko ko moom charlatan la mais yow da nga waye di lii rek picture bi laa bëgg a wane mais loolu man ak ñoom du compétition man si mission laa nekk mhm. te man mm, maa ci yeneen vibes you know euh, waaye du man ak ñoom la non non man su ma nawlee duñ nekk ci internet yi su ma nawlee duñ nekk ci tiktok bi mais comme ñoom tëju ne nit ñi di leen ut heure bu ñuy ubbee ko tijji man damay ubbi ku neex saaga ku neex ruube ku nu ma waaye gisee rek baax na <laughs> mais ku ma jege ma wàllu la baax ndax damaa baax ndeysaan mais mais mais si ama yi dégg souvent nga naan sama dama nuyu sama mbokku gambien yi gambien nga gambien cent pour cent mhm. ah, cinquante cinquante la mais bi ñu ma jë jàppee yóbbu ci woon ci laa bàyyi Sénégal daal <laughs> seen nationalité jël leen du Roubaix time la non. non time la <laughs> dëgg la mais tey tey maam ñu bëgg a dellu si waat tuuti rek ci li jot a xew ñu xëy suba gis maam ci Ahmed Cissé derrière maam di lay baro affaire yi maam Sénégal métti ñi maam xam nga ni mu demee ñu gis nga génn wax bay jooy ni dañ laa tuumal ëpp la doole tey nan nga dundee loolu non non loolu jooylawul ma li ma jooylaw mooy injustice ak suma yaay mais métit non métit su jooyloo góor na dem oddu ji mhm. non non non mais sentiment xam nga dama wax ma ne ndox bi gën a foor mooy ronkoñ sentiment rek moo ko mën a indi du ko neex jooy mais la lay jooy loolu looloo rëy mais pas jooy mhm. mais bi nga demee tey maam ci ci maam ci maam ci ci xamante ni maam mooy kaso bi te la nga fa dund loo xamante ni gis nga ne lii naqari na ma métti na ma lool tey nga partagé ak waa CNN fii non dara dara dara mhm. to be to be honest non non man kay kaso mhm. bu doon nit la dama koy takkal médaille kaso bu doon jongama la moom lay nopp <laughs> kaso bu doon oto moom lay dawal kaso bu doon yéree moom lay sol mm-hmm, mm-hmm. ah, taxaw dem naa ba bunti rëbës ma taxaw di ko tagg hmm, rëbës laa doon tagg ma ne ko yow yaay gor gi nga xam ne bépp gor buñ xamul valeur am ba dugal ko ci yow nga wan ko valeur yow yaay mbalitu askan bi waaye yaay seen taar mm-hmm. ndax ku ñëpp bañ nangu nga ko fii ngay defaree ba balaa kay moytu dalay may temps mën nga toog quatre ans kenn du dee rëbës dëgg donc di ko tagg tagg yu rey quoi. maa ngi ko bind. mais bu ma fekkee maam damay toog rek di woy mhm, damay ñëw ci man. kon kon musicien nga en même temps. non musique dafa tuuti ci man. Mhm. mais man hmm, ilham mooy ñëw ci man borom bi mooy wax ak man xam nga mosoo imaginer nit taxaw rek di woy kasu. ndeysaan woy yu riche yoo xam ne bu ma lay wax poème yi yow sa xool dafay neex. <laughs> bilaay xam ne kii xam na li muy wax. waaw ñu ci loolu. mooy li ma la expliqué. ndeysaan loolu laa ko doon wax. ma ne ko si biti ñu ne liberté la nit ñi duñ lekk mhm. waaye ñu nekk ci yow ñetti yoon la ñuy lekk ci bés nga gis ay gore di yoo xam ne suuf leen ndax yàlla ne min naa ha xalaqnaakum wa fiha nuhidukum wa min ha nuxrijukum mhm. taratan uxra mhm. ñuy jàmbat suuf te ñoom suuf leen te ci suuf la ñuy mujjee you know it was a very nice vibes waaw yu neex la woon you know <laughs> mais tey bi nga duggee maam ci foofu ba génn tey lan nga senti sa bopp tey lan nga sénégalais bi la génnee bi nga génnee nan leen la teeroo non xam nga man sénégalais yi den maa bëgg man dama yéex a xam ne ñi may saagase den maa bëgg <laughs> ndax bu ma nee jéeb ñu taxaw dootuñ dem naan waa ji doomaraam la imbécile la te imbécile bi ngay <laughs> yàq sa temps ngay bëggee waaw loolu nag sama euh, ko doon na wax sénégalais moo lay xas ba pare mhm. boo génnee mu bëggal la man li ma bokk na li ma kaso jëriñ ñu bëri den ma mero mais bu ma duggee kaso dañoo mujj da ngay ñu naan dama ko jéppi ba far faam loolu yëpp lu mu lay wan mooy yow naturel la rek mhm. mhm. a noppal mooy toog ci àll bi wéet mu ne wallaay wéetuma ndax borom bi ci mbeugel la ma bindee ku bañ duma saf billahi wa beutam mu ngi teggu ci man kuma gisut it yalla mi gën nit ñi mu ngi gis mhm. you know eh, mom mo ne dama taru ku ne dama ñaaw ya, da ngay fen mhm. suma ñepp baye mom japp na ma luté ak kaaraange ne yalla japp dama moy mang ci suufam ci mhm. ak man lool lay dund sa su ne man suma ñepp di saga daf may leer ne yalla saga parce que lepp luma def ba nga bañ ma def na lu ko raw yalla xam ko ta bañuma ndax mo ne rahmati sabaqat ghadabi mm. man suma suma su ma yërmandeeg su ma ci dafa jitu ci yow Cheikh Ahmed mm-hmm. bala ngay def bakkar Malay lay mere waaw moo tax bo defé bakkar sa dafay patienté bo jégaloo mu bal yene say mu bal la ba def ko tiyabu donc borom bobu la am ma amad yonentu bo xamne ne bila sababin da ngay nek ku soufey mu yëkkati la mm-hmm. yoxti bila hajabin dalay may ta du ragal ñak way yax foo bi la xadabin da lay jéggal te mere woo mhm. yàlla ak yonantu bi la tek suma karam ba loma bagn bagn bagn sama fu motam mané mois de février mu ngi waja a jeex mhm. yéen ñi ma bañ mars bi di ñëw top leen ko ngeen marché soox de ma vie <laughs> loolu métti na de waaw soox ngeen and ak mars ngeen mars <laughs> abé tout temps fu I don't care <laughs> I don't care mais Cheikh euh, tay ndeysaan nga dugg ci fofu genn xam nga gis Sénégal bëgg ñu la bëgg mais tay yen tank nga amat léegi isa mam ci li nga don def ba nga dugalaat la isa mam di nga ci delluwaat wala juste mam da nga da nga japp ni que lima ma bima dal da dal mujjé mam mam jël sama voix moy nek sama yoon man ci amat non man munuñ ma xoxatal ci dara tito non man musuma gis lu suma beut tiit hmm ndax dama xamne suko beut bi gisee rek lolou du yalla te du yalla jartati deug la musuma tit lu suma xel mhm. ndax yalla xel du ko waaye mm-hmm. xol bi moom bu xalaatee doole yàlla ak mbugalam moom tiitaange dana am. mais bi suma yoon daal ca ne man xam nga man forcé wu ma. imposé wu ma man lii laa doon maa ngi nii. naturellement waaw naturellement. <laughs> rubekat bu mag. maa ngi nii you know so. <laughs> mais bu la gaa yi fekkee sa kër taxañ taxañ la jël la yóbbu la. non demeewul noonu. Mm-hmm. den ma woo. suma gaa yi ne ma am na ku la doon woo adjudant ma woo ko mu ne ma da fi am convocation ma jëli ko vingt et une bi may ñëw si vingt deux heures di laaxatu nit ñi. Mhm. parce que bëgguma woon intervention. Mhm. ma jëli ko ñu interrogate ma jox ma mhm. signaloo ma ma garde à vue ma demaat ñu signaloo ma mandat dépôt nii la dem mais kenn jël si wul suma kër kenn tañax tañaxewu ma. non da nga demoon jël si gars yi jaaree ko yóbbu la. dama demoon jël si. ñibbi suma kër xëy wu xëy wuyu ji. des bi ma wuyu mu am procédure ñu jaarale ko procédure boobu noonu yëpp. ma dem tëdd ko naaj sa ci ngor ak jom. nga jàpp ni pièce la daal. mu jeex non pas pièce je pense que procédure seen yoon la ñoom. Mhm. enquête la laajaat procureur yóbbu dossier mu ne téyal leen ma ko jàllal leen ma ko ma xoolaat. Mhm. I think procédure yu procédure yu yoon la. Mhm. mais lan def ba ñu xëy suba rek maam maam ñu ñoo la porté plainte. Jamra la dañoo baax. <laughs> mais est-ce que est-ce que nga génne jën nga carte Jamra. non non jënd ma <laughs> waaye dinaa jënd. li nga jënd participer. Mm. ndeysaan ndax li nga doon wax rek juste. Mm, en fait ñoom je pense que dañ doon ne kaay leen ñu jàpp Cheikh Ahmed arrêté ko pour am crédibilité. Mm-hmm. mais ah bës moo taxoon ñu def ko. ñoom yéeg seen niveau quoi non ñoom dossier amul bës duñ ci dugg. dëgg la mos a dégg Jamra attaqué ko deful bës. non attaqué da nga xew. c'est naturel. xew bu dul xew yi moom man la rek. <laughs> waa d'accord. ndeysaan waa jëm la mhm. dossier bu amul bës. Mhm. no amuñ ko. amuñu si problème quoi. ñoom boo amee bës ñu ñëw. Mhm. indi ay argument indi article jamais ñu indi ay alxuraan. dëgg la boo suuraa rek la Mame Matar Gueye di génne. mais ayam boobu na ko trop. mais bi nga génnee Mame Matar Gueye woon na la wala woo nga ko juste après nga mujjee nekk sa yoon waa après nga coupé tous les liens. non ma ko daan woo. donc génn naa woo wooguma ko bi su ma amee envie laa koy woo. mais pas dama génn rek dama ko yoon non du obligation. ci man woowu la woowoo ko. non non non woowul man. mais ci biir kaso dama ko daan woo. Mhm. dafa ma daan woo. mais nii nii nii mhm. Mhm. indil na ma cadeau suma anniversaire alxuraan. bi ma génnee proposé naa ko visa AN. biir Maroc mais docteur am moo ko tere. imam beeg oustaz Mohamed Mbaye ñoom la 27 la ñu dem incha allah. may. si si waaw. day say seex seex bi man damay dem de. juste pour dire merci. dëgg sa ci li nga def. ci li ma def waaw. mais tey ñu xamee la maam ci si wàllum femme wàllum maanaam awra wàllum góor ak jigéen. lan mooy awra. mooy awra mooy maanaam li nga xamante ni mooy mooy bu ku xool jigéen sa sa sa xel nekk ci moom. loolooy awra. waaw ah ci man ni ma ko jaax man jàngu oh. <laughs> mais tey noonu nan la demee bu moo tax may laajte en fait mooy awra ndax karaw jigéen ngay wax wala baati jigéen wala oomi góor. non ween yi. ween ngay wax ak lan. ween yi xam nga ween yi si awra jigéen la bokk. dëgg la kay ak baat baat bi. ak lan ak yi nga xamante ne man mun man pré maîtriser lu bari ma xam ne dama bëgg ween. ok damay naam yow daal ween nga xam. <laughs> kon tontu bi ma ma ko ci ween. <laughs> waaw mais xam ne maam tey. Hmm. nan demee maam ak loolu noonu si yaa ngi koy jaay produits sexuels yooyu té nu démé tay da ci am nga wala dañ ko jang wala ma ba tay tay gu Sénégal ki fi tëlee rek sa xel dafay dem am Cheikh Ahmed Cissé non man dama ko jang ba paré bëgg ko wax na la né euh dañ nek société bo xamné ku do lekk ci amul mais soné dama damay ci ré ñu ne la càggal nga ñoom ñëppay mëq nga gis borom ñent jabar di mëq borom ñaari jabar yaangi ngi mais comme société bi non la démé man dama préféré di len dimbalé mhm. ndax lépp luy mankil gor kàttan amna Sénégal. moy mhm. stress. moy mhm. diabète moy tension moy bir bu def ngalaw moy hémorroïde interne externe. moy fatiguement. góor yi Sénégal bo gis li yépp bu ko dalu. juromi dal neen ko mu dess ñaar. donc té su lolu ñëwé ngora du day nelaw. know ray ko sa taxul mu donc man ma ñëw taxawé buntu bobu di len dimbalé di ci jaamu yalla mais di len yé di tudd ab baat yi ni mu amee di ko wax pour mu leer ngir jamono buy ñëw ak ñu xamul mhm. société boobu doon ay naafeq ñenn ci ñoom taxaw ne kii dafa ñàkk yar te xam ne ne dañuy fen ndaxte ñàkk yar ak wax olof du benn ñàkk yar ak jàngale xam-xam du benn te bu ko beneen sëriñ defoon ku am askat ñu ne ah sëriñ bi ak a dëggu waaye comme man la wéet naa rek dañ lay xalab di la saaga waaye bu caméra yi wàccee ñëpp xam ne ne dëgg nga wax Mm-hmm. mais tey tey li ngay jàngale li li ngay jàppale sénégalais yi maam maam da nga ko jàng justement da nga dem gëstu ko ba mën a xam ni lii mën na faj maanaam góor gu tëlee xam nga jàng ñett la mm-hmm. ñu wax la ñu wan la ak nga ñam damaa ñam xam da ko tes sa bopp ba pare damaa ñam umpale wu ma jigéen du ma vierge damaa ñam xam ni mu neexee kon sérieusement Cheikh yaa ngi laaj booy booy yan am naa jabar bi waaw mais xale yi non xale yi kenn du ko laal loolu violé la. maanaam maanaam li nga xam ne damay namp ci booy comme namp. non jàngale la. Mhm. mais xam nga ne man ñaanuma yàlla fer bàmmeel bi sax moom bu ma jegee ma namp. dëgg la bëgguma fer. dëgg la mais. kon loolu slogan bi mu indi woon mais nampoo ci booy quoi. non góor gu dul namp est-ce que am na. Mhm. mais ça dépend ci kan nga war a namp ak noo koy nampee. ah namp dafa bëri façon. dafa bëri façon. Mhm. mais jullit bi moom ku dul jabaram waru koo namp. waru koo namp. Ya mais nit ku mom sa bopp te ragaloo ah nga nàmp sax sa yaay du problème loolu loolu ëpp na ah ragal yàlla rek a mën a nit xam nga tey jongoma ngeen laal ragal rek la ko mais bu taqwaa jógee mhm. tànk yi ci palanteer ba la jëm mais tey tey la moo tax maam góor léegi di gaaw a daanu loolu pour lan la mooy mooy li ma la wax rek mhm. stress bi stress bi waaw man bi ma duggee kaso toog naa trois semaines nguur a yëngatuwul ma dem ci major da ko kaa am na <laughs> docteur sexe bi sexe bi jugu mu ne ma stress la waxtaan ak man bi ma génnee ci buntu bi la commencé yëngu ma ne ko waa lii mën a am jàmm am <laughs> nga tiis sa bopp waaw ma ne ko lii mën a am jàmm am yaay suma wéttal yaay suma <laughs> góor tubéyee tax tubéyee tax hmm. mais mais euh, mais euh, garabu ngóor yi ngay jaay maam sunguf la reer la wala meew yooyu naan non am naa sunguf mooy doy waar doy waar waaw boobu dafa doy waar mais doy waar dëgg ñu tuuti doy waar la mooy doy waar doy waar daal ku ko naan booy rëkk ci gënn gi junne yoon ngay dóor door daal sans coup maa la wax loolu mais loolu maa yoo xam jigéen du ko caxat-caxate pas sans coup de coup mooy daanu coup waaw daanu moom ku ko def dee <laughs> maanaam téeméeri dugal a génne balaa ngay daanu loolu la doy <laughs> nga koo compter ah waaw normalement non góor góor en fait euh, soo gisee dawal oto manuel baax mhm. day tax sa xel mi des góor bokk na ci sàmm sa jabar mhm. balaa nga koo yéeg liiral yaram bi ak tàngaay yaram bi. dëgg la mais loolu na ngay liiree xool jigéen. ba miin ko psychologiquement mu ngi mel ni ni ngay liiree sa doom ba xam ne am na lu mu def te defu ko rek. Mhm. am na lu mu def mu ngi mel ni ngay liiree mm, nit. da ngay liir parce que doomu aadama dafa am instinct su passé xel dafa am yëg-yëg. waaw yëg-yëg boobu dafa fort yëg-yëg boobu mu ngi ci diggante xool ak xel. Mhm. sa jabar balaa ngay dem war nga koo mën a xool nan la yaram bi di jëlee doos bi. Mhm. boo commencé dugal war nga mën a xool. suy waaj a war nga mën a xam. su daanoo ba pare war nga mën a xam réaction am looloo tax ëllëg bu sa jabar mooyee nga ne ko tiis jàpp. jàpp donc loolu expérience boobu noonu am jamono jii. yomb na am bàyyi xel la rek mais su fekkee amoo xel yow da nga bugg rek nguur a njaay tooy nga daanu. soo paree naan ko tu me fais plaisir euh, du noonu non non non. <laughs> il faut nga xam li ngay def lan la moo tax. fi balaa ngay laalante na doon sa fiancé. Mhm. au moins soo mun su ta nekk sa jabar. Mm. mais foo yéeg jot rek yéeg cëpp soos doo xam dara ne nga jàpp jàpp miin jigéen ak xam jigéen du benn waaw nit mën naa yem ci benn góor rek xam jigéen mhm. da ngay lire lecture la waaw xam yaramam da nga koy xam soo xamul sa jabar noo koy daanale noo koy bégale faaw nga xam ko moo tax da ngay dégg nit ki ne man def naa maam ay ay dix ans de mariage musuma xam li bànneewu sëy ne nekk foofu lay jógee quoi nga nekk sa jëkkër te mun la satisfaire sexuellement. non jigéen ñi ñoo ñoom dañu dafa am dañu dañu doy waar buñ la bëggul boo gënoon ak garaaw king kong sa duñ la yëg <laughs> ñoom dañoo doy waar suma ji suma xarit ñoom kay dañ lay sentir boo simeekoo sa ñu commencé tooy. mais nii nii nii non gën la ay king kong del indi floor di sukk ko joxe xaalis buñ la saaga. Oh. donc dañu dañu honnête daal ñoom daal buñ la bëggul rek bëgguñ la. Mm-hmm. dëgg la. moo jarul forcé de jarul liggéey jarul insister. Mm-hmm. soox soox.

Mm-hmm. donc loolu dafa am dafa am solo tamit quoi jigéen gis seytaane si si si jigéen bu la sentir da dafay daan amul werante mm-hmm. Mm-hmm. ndax ñoom seen yëg-yëg ci espace la nekk espace maanaam boo leen jegee rek ñu commencé tàng jigéen moom boo koy jege mu tàng waaw waaw même sa gémmiñ sax sa kaddu jege noppam yi rek yaramam day daw di caddatat yi xam nga ñoom espace la. moo <laughs> tax soo ko akulaatee lu bëri la yam surtout jamono sedd. jamono yi sedd. ñan fonk jigéen waay. non jigéen dafa neex nag. Mhm. jigéen dafa neex torop. non neex mooy jigéen mais pas jigéen dafa neex. Mhm. ah neex mooy jigéen. pour na am na ñu mu sànq ñu bari neex neex boobu. non musul sànq nit ah. ah mais nit ki mën na topp jigéen ba maam léppam jeex. non topp jigéen ak jigéen du benn. Mhm. top jigen ak ah, jigen góor amul fayda nga top ko sa jigen nga top deug la. Hmm. yonent mu ne taatul nisaa i nadama top jigen reccu ci mo reccu mo ci tagu mhm. hmm. mais terel jigen mom ko tedd rek ko mën. contexte yi ñodul ben quoi xam-xam yi sew la. xam-xam yi sew la. Hmm. mais sa na woo ak ngeen da nga am produit bu tuddu doy war à part doy war ba mo am. amna andala buri. andala buri la la. andala buri ndox la ay bitakola la jinjar ak xal bo mom boko nané ni mhm wop wop wop wop wop cay àndala maadu maadu da ngay fas Ken musul gis lu mel fas du dara yow fas day sonn <laughs> mais à part boobu ba am naa bëri ba am. am naa daf koy réyal di guddal bu dëggee mu jubbanti ko bu mu guddal bu mu ah, bi bu baax. da da ngay da ngay awra. man suma xam-xam ci wàllum awra la ah. man awralog la. awralog nga. Hmm. maa ngi da ngay yokk awra mu nga ko yokk mu nga ko. damay yokk awra bu tuutee. Mhm. damay guddal awra bu gàttee. Mhm. damay jubbanti awra bu dëngee. bu nooyee dama koy dëgëral awralog la. dëgëral awralog ba yow loolu da koy jubbanti si baatin wala juste. da nga koy non pas baatin man suma garab yi du incha allah de ay su neexee yàlla yi. non non non non bi isnillahi la ci ndigali borom booy diw mu baax booy naan mu baax. Mhm. waaw neen ñu may ak incha allah kenn sañu ci laaj xaalis. dëgg la ah bu neexee yàlla mu ngi mel ni ma ne suba damay nekk président bu neexee yàlla <laughs> c'est pas réel quoi. dëgg la mais nit da nga war a jaay lu leer te wóor te man ni may jaayee la pharmacie war a jaayee kon léegi wàññeeku maladie wér. ndeysaan ah man ku naan wér. ku naan wér donc si si garab yow amul amul amul amul maanaam testé baaxul ak. yooyu non 2019 laa commencé jaay 2023 nit musul wax ne mu ngi nii maa jënd baaxul. Mhm. te ñi ma contrôle bari nañ de. dëgg la donc jooni jooni la. def gis takk takkin takk def gis. vite def gis. waaw. dëgg la tey tey tey maam def gis su la gaa keneen. bëgguma bëgg yow rakkin takk nga moom Baara Ndiaye def gis noonu la man rakkin takk. <laughs> mais li nga jaay tamit li jàppale jigéen ñi. Mhm. damay yokk seen ans yi noddante seen ween yi tooj ko ba ci kaw parce que jigéen ñetti bayre la am tuñ bi cuusi ak coppare bi coppare ba ca ginnaaw Gambie. waaw parce que ñoom ñoom sax bëgguñ loolu ah parce que je pense que. kilistorol xaw ma kalestorol. kilitros. waaw ñoom boo waxee olof complexe la. den naan mhm. dafa ñàkkeer kilitros. kilitros ñetti bayra yooyu la jigéen am ci kaw lal bi. ween yi dama defal ko. ween yi. cuus yi. cuus yi. tuñ bi. tuñ bi. ak kilitros. ak coppareet bi. Mhm. dëgg mais tey loolu na nga koy defaree nit mën na am ay ween yi ndaw nga xëcc ko. bien sûr te tamit. xale bu ndaw mooy ween yi ba mu wàcc ponkalu goor di ko raay ba mu wàcc kon kay xam-xam mun na koo waat ba mu tooju di ñuy mucc la lu ñuy diw la wala lu hmm, ñuy da nga koy raay diw ko mu delloowaat bagage yi ci biir defar ko ba mu nooy ba mu ne jàdd taxaw dëgg la hmm. tuñi la nga ci liggéey tuñi non boobu amu ci xam-xam mhm. donc tuñi daal nu mu mel baax na non pas nu mu mel baax na man maa ci amul xam-xam copperet bi man ansi laay defar ak weeni yow euh, ñi gën a baax daal ans yi mais ans da koy da koy réel wala koy jëloo non da nga diw rek muy muy muy màgg quoi mhm. xam nga ñu ne sa jabar bu la tooñee mattal taat bu néewee yokk ko taar mhm. jigéen kenn du ko dóor ndeysaan ah, loolu baax mais di ñu dóor seen jabar yi de non tëddal ko ba rek nga matt bu néewee mu gën a duuf après bu solo day naaj mais ma jongal <laughs> mais nag yaa ngi liggéey nag lu neex Cheikh lu xam-xam bu neex bu man ma mën ma man ma bëgg a jàng man. mais mënoo avancé ci wàllum taat. non si nga ci de. <laughs> non yow ko bëgg a taat la. <laughs> non damaa faible. Hmm, mais loolu mën naa ci mën nañ ci dara. góor bu faible. ça dépend ci ban faiblesse nga faible rek. bu dee yow da ngay gis ay ween rek. lu nga gis insecte daal di ubbeeku. loolu jàngoro la wala. kon yow da ngay mën a ubbeeku di tëju. waaw man damay ubbeeku ci na la man xaw ma loolu man xam-xam yeegu ci dëgg mais mais mais bu dee man damay gis weer rek tàkk sama sago nag bu ko la rek hmm. ah, mais mais mais mais Cheikh am na ñoo xam ma bëgg nga jàppale mu ngi tax waate maam ci bus yi ak maam car rapide yi non man gisuma loolu non fii Sénégal am na ñoo xam ne dañuy tafu ci bus yi ak ci car rapide gis naa ni comme day jël loo ci def non ma ko wax nit kuy jugee maam gisuma ko aw ma ci xam-xam ne na tey par exemple damay tafu waate mënoo koo faj. no man daal lu jëm ci wàllum awra bu dëng. Mhm. ak bu nooy laa mën lu dul lii yàlla na ci yàlla def jàmm <laughs> du ma sëriñ ñaanuma ñaan lu <laughs> d' accord Cheikh Ahmed kontaan na ci loolu mais tey na nga gisee showbiz Sénégal yow nga nekk si showbiz bi gis maanaam tey artistes yi comédiens yi sa faa xiro beg naay en tant que tey Cheikh bi tey lan nga ci am loo ci wax. non nit ñi dañu comprendre man suma intelligence mayut ma ma nekk showbiz am na koo xam ne day. jugee kërëm mhm. dem ci showbiz fa lay jëlee dépense. Mhm. fa lay dundee. fa lay amee. Mhm. man su ma demee dama fay joxe mais duñ ma jox. man du ma dem fu may perta non non non li ma fa yóbbu ak li ñu foog du sa benn. you know am na koo xam ne bu showbiz amul day di jamono corona ñoom ñëpp a wayadi. donc yaakaaroo ci arbi non yaakaaroo ci milieu showbiz bi. am na ñoom ne dañuy ñëw. lepp dem bu ñu fa jógee la ñuy fay. mais Cheikh Ahmed bu ñëwee kan moo koy may. bi nga ñëw jib la mission laa am bu gars yi xamagul mhm. mais man ñàkkuma fayda dem di génne ay millions cinq cent mille di maye chaque samedi ak dimanche pour la newoo ci yooyu non mais missionnaire laa fa bu mhm. jeexee rek day jeex mais tey lan mooy sa mission tey Sénégal fii taw ngeen nag ci àddina pas Sénégal waaw ah, ci àddina bokk defar koo yi rek surtout kese yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defal na xel yi Cheikh Tidiane defar xol yi mhm. pour bàññees defar ruux yi seex bi ñoo defar man man defar awra yi parce que loolu insaaniya la mission bi la sant la waaw man maa ko aaki moo bëgg ko di ci jaamu yàlla quoi mhm. mais tey loolu lan la la may tey defar awra may na ma teraanga àddina mhm. parce que mos naa dégg sa benn interview nga ne maam waa ji euh, maam dawalkatu sereet bi la doon jàpp di ko tëyëx si bari bari na sax cas yooyu am naa mhm. ci benn rek bi may ñëw nii ci oto bi waa na ma cheikh bi suma far bi ma jëndaloon doy waar bi de tout mu ray ma su ma ko teeloon a xam du ma tas ma ne ko da ngay dellu sa jëkkër saa yoo bëggee ma may la ta doo jënd waaw te su delloo ma may ko du jënd mhm. donc jaam xaalis moo ma ci dugaloon mais après jaamu yàlla gi moo ma ci bàyyi mhm. mais da nga gis góor goo xam ne du ñemee wax sa téléphone day ñëw sa kër mu leer la ne sa morom yi bàyyi la mhm. mu lay expliquer jabaram yi nuñ koy moyee ba ci kaw lal dañuy wax ak seen fari naan leen suba dinaa fa ñëw te doo ñemee wax parce que soo coowee mu ne la doogoo waaw dafa bari moo tax Sénégal man den ma waroon a décorer. ndeysaan am cër buñ ma jox. ndeysaan parce dafa am lu may liggéey luñ lu seen bàyyi mënta liggéey. Mhm. lu seen sëriñ si ñemewut a liggéey. Mhm. man ma koy liggéey. ñu doon ay naa naafeq naan dafa ñàkk yar dafa ñàkk teggin non non man mënuma xam yàlla ba pare ñàkk yar. dëgg la loolu mënul nekk. te ku ma xam soo jàkkaarloog ma nga xam ne kii ñàkkul yar. Mhm. mais dimbale nit daf ma jaral lu nekk ndax yonentu moo ko waxoon Seydina Aliou na ko fexe ba kenn jub moo gën lu jant bi di tiim waaye fexe ba dimbale doomu aadama war na la jaral sax ñu saaga la war na la jaral ñu xas la donc sa biir wax damay damay gis ni maa da nga dafa mel ni maam yow fi la waroon teg teguñu la fa non recommandation bu ñu war a am amuñ ko mais bul fàtte ne Cheikh Anta Diop balañ ko tuddee université dee na dëgg dañ ko bañoon a jox doctorat te mu fi indi carbone 14 you know donc tey peut-être jamono ngi ñëw jamono jox ma raison. Mhm. def lu baax daal moo am pertement. waaw su dee lu may def lu baax la lu sell la yàlla laa ciy jaamu. Mhm. du ma réer de. waaye su dee xamadeeg sañ-sañ lay jaay fit bu rëy. Mhm. ngeen ma bàyyi àdduna dana ma ñuus ba ma bëgg a dee. donc moo tax man wooree wu ma quoi ça va. xam naa li may def xam naa fi ma jëm. donc ci li nga nekk nii maam à part xaalis bi jaamu yàlla moo ci. waaw xaalis moom moo ma ci dugaloon franchement. parce que dafa gaaw. gars dañu ñëw nii benn bés nga dajale ay trois cent <laughs> ma ne yéen lii neex na. affaire yu tukkur nga dem bay jaay un million un million cinq cent deux millions ma ne hmm. yaaw. Hmm. mais après da ngay dem ba gis lu la ëppal loolu. Hmm. jigéen woo la ne la maa ngi lay sant di la gërëm xam nga expliquer la kaam góor woo la. you know am na jigéen boo xam ne doomam yëpp seen awra dafa gàtt. taawam bi jàng na ba am mas ñemewut ta takk jabar ya. ñemewut ta doxal yëpp yaa guddal ma di leen dimbale ñooñ dama leen may te seen yaay am na xaalis. ndeysaan mu ne ma dama laa seetaan ba ñeme la wóolu la mhm. waaw ndax man neexoo ma woon suñ bureau kenn ma ne benn jigéen moo lay déglu mhm. soo waxee lu reetaan lu ma ree noonu laa dem ba bëgg la ma lay déglu nga convaincre ma mhm. ñooñu ñëpp ma defaral leen bañ baax même xale boo am sept ans sax est que bosam yemul ni micro CNM bi yaa ñëpp tuub rek waaw <laughs> mais nag loolu li nga jaay amul conséquence non àdduna lépp am conséquence su ma toog fii sax am na conséquence. dëgg la mais est ce que maam conséquence boobu ëllëg du feeñ maam tamit parce que affaire yi est ce que mën nga si sukkandiku tout le di naan di diw di raay di dóor di naan di diw di raay di dóor. ta nga ta nga sax si lekk ak naan lekk lay jox jabet lekk lay jox tension. Mhm. yaa ngi koy def. mais loolu doole boo doole ci yow la du nekk lu naturel. dama ne. Mhm. bi nga juddoo ba tey yaa ngi lekk. Mhm. lu tax arrêté woo te lekk moo lay jox jabet. lekk moo lay jox tension. yaa ngi lekk rek. dëgg la naanal garab yi rek. li war a am am foo ñu réalistique quoi. donc jàpp nga ni garab yi amul benn cons bu am. am lépp am conséquence. loolu laa la ce que ngi koy xamal gars yi ñuy xanaa ñoom dañ ko soxlaa xam. Ah, ndox sax am na conséquence. ay naanal paane ndox mais tey mais tey fan ngay fan ngay toll maam ci nit koo xamante gis nga ni kii nii impuissance bi mu am nii tey wala fekk am ni man mënuma ci dara fan lay toll ci nit koo xam ne lii c'est trop tard moo toog moo toog amul benn garab boo koy jox du doy waar dara boobu maam bu mu gis ni que lii mun na changer. Euh, su fekkee ne dafa am benn sidit bu dagg ci biir. waaw waaw boobu moom c'est fini jeex na. jeex bu amee benn veine bu. dagg ci mais dafa nooy rek. Mhm. non benn kaasi ànd laa mun <laughs> yëkkati ko de. mais sidit moom bu daggee moom y a des problèmes. franchement boobu moom merci rek moo ci mën. non merci ciy topp. mais tey mais tey mais tey kii booy di mballu nag mballukat yi. non seen affaire la. non mais Mbam tey nan ngay jàppalee ñi nga xamante ne dañuy mballu ñi nga xamante ne maam mënuñoo bàyyi mballu. non amu si amu si ñoom xalaat. mais mënoo xamante ne maam sa guddi mu jël saabu wala omo. non su ma nekk si. amul ñaan boo ko mën a jox. no téere du ma sëriñ sëriñ saa bind ñaan ak téere. amoo tamit pommade boo ko jox mu bàyyi mballu. non. donc mballu ko di amuñu chance ci yow. no non non xaw ma leen sax. <laughs> xamoo leen te jàppale benn mballukat. mais tey li yaa ngi jaay doy waa xale jigéen ñi dina tendance papa di woo di ay Cheikh Ahmed yow affaire yi xam nga bëgg la ku ma bëgg dugg da ma doon kër gu amul rido ñëw rek sarale. yow dawoo ci saala yaa neex. <laughs> mais ñi ngay faj papa duñu keesawu quoi bu ñu amee ñëw keesawu wax la lii moom ma dal wala nga gis ni kii non non man maa ubbi buntu boobu man da ngay ñëw carrément jaar ci baat yi. wax ak man def ak man mu jeex nga dem ñu nekk gaañ. Mhm. man nit ki lu mu kese woo kese bu ñu. su fekkee ne société bi dañ ci noppee wax def ko kers mhm. boroom jàngoro yi dañuy nopp. mais den may woo su ba ngoon guddi bëccëg di wax seen problème. ñu lay woo jigéen te jigéen ñoo si ëpp maam pour seen jëkkër ak seen famille. non léegi jigéen yaa koy jënd si de. tey nii rek fu ma demoon ci ziare bi jigéen na jox ma sëriñ ca su ma demee ma tàngal kër ga. en fait dem naa ba nekkatul kersa ci ñuy sëy ñu jëndal ko seen jëkkër te c'est bien beau. ndeysaan mhm. nga daal di sàq ci oto bi jox ko mu yóbbaale. waaw <laughs> yow su demee tey ñu nekk fa relli relli gi foo toll di ko dégg. ne ko si mais tey mais tey si mooy projet yi tey est ce que maam tey ñu ngi xaar maam Papita Cheikh Amath wala loo xamante ni maam tey genre maam institution boo xamante ni maam nit ñi mën la faa fekk mu am ay maam mu jaar si si dans les normes quoi. si si waaye comme garab yi du doon suma liggéey à 100 pour cent man. leneen lay liggéey depuis the next five years yeneen cinq ans. Uh-huh. mais dama bëgg a. donc garab yi dama bëgg dugal garab yi ba mu mm-hmm. toog ci réew mi ma créé base de données dix mille ba vingt mille personnes. Mm-hmm. di leen jaay chaque mois loolu mën na dépassé wu nga dem nekk ci leneen quoi. Mm-hmm. donc yow bëggoo sukkandiku ci jaayam garab bi kese. non atam. su ma wërsëg ëpp na loolu. teew teew yàlla nga. waaw. monsieur Ameth te yaa ngi woon tey seen émission maam Roubé Time tey na nga gisee maam concept émission Roubé Time ak maam fii CNM TV tey nu mu tey bi nga ñëwee te ba yëg-yëg nga am. non bi nga waxee baat bi rek laa dem ak concept bi. Mhm. parce que ndaanaan laa damaa man bés. dëgg la wax nga ma ko. Mhm. nee nga boo bëggee mu neex dafay neex. Mhm. dama ñëw rek nga ne ruube ma xam fi nga jëm ma topp la ci ligne boobu. Mhm. jox la émission bu nekk. dëgg la su jeexee rek ñu fay micro yi jàll ci leneen. jàll ci leneen mais tey maam la mooy sa mot fin. mooy képp koo xam ne dag ma bañ jërëjëf. Mhm. ñi ma bëgg ngeen ñaanal ma yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatulah. <laughs> mais ni nga tawaloo ñax na kees rek doo doo ñëwal gars yi <laughs> na. mot de la fin <laughs> waaye la ngay tàggatoo. tàggatoo la. <laughs> waa gis nga. xam nga xew <laughs> dafa xew nag. Hmm. non Cheikh Mamadou du dafa ne yaa gisoo du mu dafa ñëw jàpp ñàmbaram xam nga mel ni ballu fëgg jaay ne ron <laughs> jàpp ni nekk ci lu neex waaw si des bonne émission bi yëgal niveau a si beneen numéro ak beneen Roube Time